waxee dañu bàyyi lépp lu ñu jàppoon teg ko ci suuf te gis nañu ni am na jeexital euh, ñu ni woon nag ñun bu ñu génnee laata ñuy def benn yitte te mënuñu daaneel euh, sans rafetlu euh, ki nga xam ne moo jëmmal sa yéene ak sa pas muy sëñ Bass Porokhane parce que doxal na mission bi ci anam bu mu gën a rafetee te doxal na ko fu mu gën a nekkee yoon donc Euh, fexe na ba ñun ñëpp ñu waxandoo defandoo ci benn kàddu euh, li ñu ñaan la chaque fii loolu moom ñu ngi ci ñu ngi koy jëfee euh, loolu moo waral ngërëm bi nga xam ne du dina dina jiitu ci yow waaye dina àgg ba ci sëñ Bass Porokhane mi nga xam ne bëgg nañ ko ziare ma yemale ko foofu rek bàyyi daam nu mottali kàddu jërëjëf xam ni seen maasu mbub nii toog ci la bokk ak Clédor Sène nii ak man mii Dame Mbodj ak Assane Diouf Sama ak Abdou Karim Gueye ak Madina Dieng Serigne Saliou Thiam ak Mamadou Lamine Dieng léegi nag ñu lay wax ngi lay gërëm bu baax ndax di sant nag ñi nga xam ni ñoom nga joxoon euh, ndigal bi ñu ñëw fekk suñu ca Ndakaaru euh, te sëñ Bass Porokhane jiitewu ba ñëwee fekk nañu waajaloon ndax booba euh, xel yëpp jaaxle ñëpp tiit nañ Sénégal bi nga ñëwee yónni ñu ñëw matale nañ lool la nga leen waxoon mm-hmm. ba ñëwee ñu ñaan muy sëñ Muntaxa ne na ngeen teg lépp ci suuf ban ko waxee ca fasaase ñu ngi leen nangu nañ ndaxte mooy suñu kilifa di kilifa ki yor réew mi fii sëñ Mountakha lu mu bu ñu woowoon ca Touba dañuy déplacé wu lii mu leen yónni sax ñu ñu ñoo ñun lu rëy rëy la ci ñun ñu sant ca lool bi ñëwee léegi ñu ngi sant bu baax sëñ Bass Saliou ñu yegsee daal nañu dal bu rafet moom ak sëñ Modou euh, Rokhaya ak euh, sëñ Abdou ñoom it wax dëgg yàlla euh, li ñu wan fii tey gën na noo yokk sëñ Abdou Diop mii nga xam moom la sëñ Bass Porokhane yónnee li ñëwee ci kàddu yi rafet wax dëgg yàlla rafetlu na li nga xam ne moom lañ taxawee ñun tamit ca Ndakaaru bi ñu ko yónnee ci ñun ñu lay xamal li ñu bëgg ci réew mi mooy am taw mm. moo tax bi nga ñaanee ñëpp ñëpp fekk sa ci loolu Sénégal gépp kontaan ci mm. ndaxte ñëpp tiitoon nañ ne Sénégal day tàkk naam am na lu jot a am waaye bi nga àddoo rek Mbàkke yónnee ba nga yegsee lépp loolu ci la lépp sedd moo tax Sénégal gépp ñu ngi lay gën ñun nag li ñu tax jóg mooy defar réew mi lii nga xam ne mooy ruuma daat ci réew mi bëgg a yàq réew mi mu tàkk bu sa mandat jeex nga dem ci jàmm képp ku Sénégal yi bëgg a fal ñu beneen bi mooy li nga xam ne coow loo xam ñu koy dégg ci réew mi muy coowal ngóor jigéen li ñu bëgg a lawal ci àdduna bii te yow nii xam ne looy yéen ko ci liggéey pour diine ji nga xam ne seen loxo seen i kilifa lañ ko joxoon ngeen bëgg koo bàyyee seen i sët ak seen i sëtataat gépp nekk ci nekk ci jàmm loolu rek la ne ñaan Mbàkke pour ñu jàppale ñu ci pour Sénégal dara bañ koo yàq sunu askan kenn bañ koo yàq ndaxte yow ci lu baax rek kon nag lii rek moo taxoon ñu ne ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal wax dëgg yàlla te lii nga xam moo am Sénégal na nga yëg ni Sénégal yëpp ko def ñu nag xam nañ yow nationaliste liggéey nga lu baax yàgg na ci réew mi kon na tey fedd li nga la nga daan def Mbacke jërëjëf ñu ngi sant jërëjëf maa sant bu baax di jàkkaarloo bi ma jàkkaarloo nag ci samay kàddu mooy maa ngi jéggulu ci yenn kàddu yi nga xamante ni bu yegg seet bu yegg ci nopp li am jamono yi weesu moo taxoon nit ñi di dégg Assane Diouf Fall ndax ne réew da nga cee nekk bàyyi fi am fi ay mag yu baax ñu toog rek. loo soxla boo ñëwee ñu ñaanal la ko ñu xëy am ñoo xamante ni kenn xamuleen woon mm-hmm. suñu bàyyi sonn lool ñu jiite ñu ba pare du ñu déglu kenn moo waraloon ñu dégg yenn kàddu yi ci man na ci déglu bu baax la sant bu baax tamit comme gis nañu waaye li ma gën a soxal ci yegg si li ma yegg si fii mm-hmm. man ku nekk xam na ne Amérique laa nekkoon Cheikh la Lamine Bara Mbacké sa mag ja moo tax moo ma yóbbuwoon Amérique ma demee musuma laal yu fi jàmbur musuma tooñ musuma def lenn boo commencé di doyal sama réew di fekk ma fa jiiñ ma terroriste ñu am suñu benn mbokk bu ñuy wax Ousmane Tounkara muy sama xarit nga xam ne keroog bañ ma jàppee ci la ko sénégalais yëpp xam kenn mosu koo dégg kenn mosu koo gis ñu jàppaat ko bii yoon jiiñ ko terroriste ba bëggoon Mbàkke Bàll nga ñaanal ko ñu bañ koo néewal doole ndax njabootam juróomi dong ak soxnaam te moom moo yor njabootam fii kon loolu rek laa ko yëkkati kàddu di la sant di la gërëm tamit la ñaanal nga yàgg fi amiin waaw waaw waaw déglu leen. déglu leen. jërëjëf dañu mën a jërë ngeen jëf. mu ne yëg na yitte yi leen yëkkati ci seen jotaay bii. nee loolu nag. nee na mbir mu yaatu la moo xam amoon na yéene ko jàng man leen ko man leen amoon na yéene man leen koo daal di jàngal. nag loolu itam. dadul mën a gaaw a nekk. ndax adduna nii mu baaxoon nii. waaye bi mu baaxoon nii. gis ngeen Serigne Touba. gis ngeen Serigne Touba. diggam ak àdduna. diggam ak àdduna. diggam ak ngóor yi gi mu fi fekkoon. diggam gis ngeen na mu gis ngeen na mu demee. loolee rek moo fi nekk ba na loolee rek moo mën a xew rek. nee na lu mën a xew rek. da ngeen di dalal seen xel. da ngeen di dalal seen xel. te gën a rafet njot. te gën a rafet njot. seen diggante ak seen borom. seen diggante ak seen borom. ndax mooy def muy génn. ndax su borom mooy def muy génn. te wutewul dara. te wutewul dara. moo gën a xam suñu bopp. te moo nu gën a xam suñu bopp. ndax moo nu tàgg. moo nu gën ci suñu bopp yi. te moo nu gën ci suñu bopp yi tam. ay kàddu nee na lii mu leen wax kàddu la yoo xam ne mën na ko yaatal lool. noonu adduna demee woon jamono yi Sëriñ Tuubaa di fay. nee na noonu adduna demee woon bu Sëriñ Tuubaa di fay. nee na ba tey loolee rek moo fi nekk. noonee Sëriñ Tuubaa doxee woon itam. noonee Sëriñ Tuubaa doxee woon itam. yéene woon ko jullit yëpp. yéene woon ko jullit yëpp. jaay boppam boromam. jaay boppam boromam. gis nga dara du boromam. gisul dara loolu boromam. liggéey bu rëy bu liggéey bu liggéey ko. ba liggéey bu rëy bi bu rëy bi mu liggéey mu liggéey ko. bàyyi na ko. loolu rek nee na loolu rek nag moo fi nekk ba léegi. bu leen jombale seen bopp dara lu baax. bu leen jombale seen bopp dara lu baax. xam naa loolu léegi yéen tax ay bëgg lu wax leen ko teg. nee na xam na li ngeen def lépp bëgg lu wax leen ko teg. waaye nag lu baax lay dëgg dëgg dëgg lu baax. waaye nag lu baax lay dëgg dëgg lu baax. dafa am yoon. loolu lépp nag. nee na loolu lépp nag. noonu ni leen ko tënkale rek. ni leen ko tënkale rek. ci sëriñ bi ak jamono joo jamonoom. ci ak jamonoom. loolu rek nekk ba léegi. loolee rek moo fi nekk ba léegi. ñàkk ñàkk solo ci moom. nee lu mu ñàkk ñàkk solo ci diggante sëriñ bi ak sa lu ci ñàkk ñàkk solo. nee lu ci ñàkk ñàkk solo. war na noo xam ne loolu mooy suñu dono. war na noo xam ne loolu mooy suñu dono. waruñoo bëgg dara. bëgg dara. ñun ñii. li fi sëñ Tuubaa bàyyi. nee li fi sëñ li fi dara. waruñoo bëgg dara. defar rek mooy suñu wàtte. defar rek mooy seen wàtte. defar dong mooy suñu wàtte. nee na defar rek ñoom mooy seen wàtte. kon defar gi. ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen ndawi réew mi. ñi nga xam ne yéen ndawi réew mi. suñu boobu. seen liggéey boobu mu defar gi kenn gën leen ci kenn gënal leen ci ci defar ci defar defar rek defar rek ak ak fu mën a jaar lu mu mën a bari lu xale bari bari bari bari lépp fu mën a jaar ak lu mën bari bari yàqu yàqu mi ngi ci yàqu ak defar waaw yàlla moo def ci coobareem yàlla mooy def lépp ci coobareem faw nag waaye faw waaye ginnaaw yàq yàq ngi yàqu ngi am. ginnaaw yàqu ngi am. faaw faaw faaw defarkat. faaw defarkat na ci wetam di defar. kon nag. kon nag lii ñu gis a gis néew ci tolluwaay. lii ñu gis a ñu nekk dong. loolu dong. nee moo indi waaw nag kon noonu rek la. kon noonu rek la. góorgóorlu bu baax. na ngeen góorgóorlu bu baax. incha allah. nga xam ne sunu borom mooy tax mooy dindi. te te te ku ne tekk itam. te ku ne tekk itam. ànd akub dal. ànd akub dal. boole ko ku njub. boole ko ku njub. bëgg la ngay bëgg. bëgg la ngay bëgg. nga di ko wut yar ak teggin. Eh, nga di ko wut yar ak teggin. nga a bëgg di ko wut yar ak teggin.

loolu la ngay wax. amiin yaa amiin.

amiin yàlla na fi yàlla yàggal. ah. non non non non. waaw waaw waaw ñaanal na leen ba noppi waaw.